la société sénégalaise la femme sénégalaise dañoo évoluer ci benn cercle boo xamante ni mënuñoo wax en réalité même bu ñu leen wax loolu bu ñu leen jéem a wax loolu duñu wax c'est ça la nit nag boo bëggee faj da wax problème yi da ngay poser le doigt ci plaie bi boo ko bëggee faj mais tant que ñu ngi koy raay raayal rek. on va se réunir chaque année pour lancer ça et c'est ça qui est parce que am na koo wax wala waratuñu toog di lancer même ay chaises d'activisme war nañoo dépasser foofu mais tant que li war a waxuñu ko nous allons continuer à lancer ces chaises d'activisme au Sénégal et c'est dommage.